yaw mi réer sa xam-xam bariwul bul rëy demal laaj ustaas ba laajal imaam ba laajal borom xam soo ko laajee lam ja xam dina la ko wax yow mi gëlëm dem ba xamatoo loo war a def am ngay bokk waxtaanal ak ñoom diisool ak ñoom ñu xelal la soo ko defut dinga nga daanu yow mi wér bul tëdd demal nga liggéey dina am jamono di nga liggéey doo ko tal yow mi mer yonent bi indi na solution jëlal sa tala nga dem jàpp soo jàppee nga julli ñaari rakka mer bi day wàcc mer safara la te safara ndox da koy fay yow miñ tooñ ba mu wóor la dañ laa tooñ waxal xasbuna allahu wa ni'mal wakil alquran nee na yonent bi dafa toogoon ñëpp fexeel ko bu koo sànq moom mu taxaw ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil kese toog fi mu toog yàlla la mu ci teg wax leer na dara mujj ko jafee xanaa jàmm yow bi nga xam ne takk nga jabar ba pare nag bul seentu noflaay lay xaar moo bëri ba sa jabar ñeetaan